fas yéene naa di tagg di way man xayrul anbiyaa sama lamin beek sama baat bi jox naa beek lamin bi jox naa ko yonen waaw waaw fas yéene naa di tagg di way man xayrul anbiyaa sama lamin beek sama baat bi jox naa beek fas yéene naa di tagg di waa ah, xayrul sangu maakataak madina toolaati way sang sangu maakataak madina toolaati sang bi sangu maakataak madina toolaati way fee sangu addina yonen bi ay yonen be na soppey yonen tahaak yaasin ak ahmado bi sang bi tahaak yaasin ak yaay amina waaw salaatu wa salaamu yal na sax ci suñu yonen be ak waa këram ge ak isa saxaabaam ak waa lislaam bee ak waa këram bee ak i saxaabaam ak waa lislaam bee ok mbokk yi asalaamaaleykum wa taala wa bu ngeen déggee nuyoo boobu ak jëmm yu tedd yu sell yi toog ngeen xam ni xew xa amati li xew lan la ak ñan ñoo xew la ak li ñu woote lan la ma ne waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooy woo képp kuy soppe yonent bi képp ku xool sa xol rek gis ci cofeelu sallallahu alayhi wa jàppal ni woote bi yaa ngi ci ñooñu woote li ñu woote lan la ma ne la son et lumière fu ñu ko wootee fan la ma ne la fii ci mbedd Fass kañ lañ ko wootee ngalaaj moo ko mën a la 6 mai incha allahu rabbi gannaaw ba ñu woowee ñëpp rek ñu seppat ci ku ci mel ni ñi nga xamante ni sëriñ Samba Sow di suñu njiital dairatul muhibbina fillahi ak suñu yaay jabu sëy di ci woo alxaaji viya bari di ci woo monsieur ministre Omar Sow di ci woo sëriñ Mamadou Ba borom Cisador di ci woo waa parcelle di ci woo waa Fass Ngom di ci woo waa Kër Massar di ci woo waa Mbedd fas ci woo képp koo xamante daal dig nga kàddu gi rek ñoo la ci woo. ci woo waa Mbedd Vision TV waaye tamit di leen jaajëfal ca njiital Serigne Bamba di ku am taxawaay ci bis bi lool ñaanal ko yàlla système bi yàlla yàlla teg ci loxoom yàlla gën koo yaatal ba fépp foo ñuy dégg wala foo ñuy gis séddi yàlla yóbbu ko fa ba mu nekk ay télé télé yàlla yokk matériel yi. te xam naa ñoo ngi koy xaar ci bis bi incha allah rabbi ngeen bàyyi ko xel dina nekk en direct ci Mbedd Vision TV le 6 incha allah rabbi bu ko kenn tardé ay ku ko tardé tardé lu neex. mbokk yi nag bis baa ngoog ko képp koy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi la ci woo. di sàkku teewaayi sàkku ndimbali sàkku lépp ñaan yàlla yóbbuñ ci jàmm incha allahu rabbi lépp luñ ci bëgg yàlla defal ñu ko barke Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa salaam di woo góor di woo jigéen di woo mag di woo ndaw bàyyiwuñ waa koñ bi bàyyiwuñ waa mbedd fas waa fas Mbaaw waa Talimaam Jaara waa Jàmmagan waa Cees waa Mbuur bàyyiwuñ kenn mbokk yi bis baa mu la siis mais incha allah ñu bàyyi leen ko xel leen na bien de kër Baye Mor ñoo woote son et lumière asalaamaaleykum maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen invité nag suñu programme bu mag bi ñuy amal le 6 mai ñoo ngi si woo ñëpp nag góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp ñoo ngi leen si bis baa ngi noonu nag ñoo ngi si ñëpp ku ñu xam ak ku ñu xamul ñëpp ñoo ngi leen si nabiyeen yi nabiyeen yi ñëpp ñoo ngi leen si samay xarit samay waa classe ñëpp samay mbokk ku ma xam ku ma xamul woo naa ñëpp le 6 mai incha allah woo nañ leen yéen ñëpp votre présence est vivement souhaitée. ok bis baa ngi noonu. ñu ngi si woo waa Ndar waa waa Pikine Angaltal bàyyiwuñu kenn di si woo tamit sunu maam day Ba waaw waa umma ñoom ñëpp ñu ngi leen ñu ngi leen si woo di leen ko yëgal bëgg nañ seen incha allah ak ak aussi seen ndimbal bu fekkente ni mën na nekk parce que affaire bi narul narul nekk lu ndaw incha allahu rabbi waaw fa tabarakallah asalaamaaleykum wa rahmatullah sama mbokk julliti sama mbokk taalibe man lay nuyu di leen ziar di leen jagal suñu bis le 6 mai incha allah spécial ndawanal di woo waa buun di woo sama xarit yëpp suñu waa classe di ko yëgal ñëpp bëgg naa ngeen teew si incha allah nabiyeyi ñowo nyowote so elim yet nabiyeyi ñowo nyowote so elim yet lesis lesis so elim yeet ana taalibe di fa seex yàlla ko may mayu maan yaa seexu tijaan fa man yu laazimu xutbi wa tof ka moom dëkk doom laa tajjaru yaa unaasi njëkkante leen jëm ya seexu tijaan damaanatun damaanatun o waaw damaanatun damaanatun min rasuli ma yem gamom moo di mbir ya mooy mbir mooy mbir mooy mbir mooy mbir mooy mbir ya mooy mbir ya mooy seexu tijaan mbiriyam mooy seexu tijaan seexu tijaan